asalaamaaleykum mbokki réew mi asalaamaaleykum mbokki Tiwaawan yëpp tey maa ngi fi toog ak uh, sama góor gi uh, mu am nag benn mbir bu ko arrivé boo xamante ni uh, tey dafa ñëwoon seet si ma vraiment bëgg ñu waxtaane ko muy lu doy waar loo xamante ni sérieusement parle lu mënoon a ñàkk la ci diggante ay bokk tey nag mu ñëw fii ci Tiwaawan ngir seet doomam doom boo xamante ni lu tolloog weer yaakaar naa mu ngi nii gisu ko waaye moom dañ koy bàyyi moom personnellement rek mu wax euh, situation bi nan la demee waaye daal wax dëgg yàlla yonent bi ku ko mën a dimbali ci képp ku gis euh, photo boobu di daw ci euh, vidéo boobu di daw ci internet bi kooku mooy doomam doom ji Ndeye Khady Gueye lu tudd mooy kooku noonu di daw ci écran yi gis ngeen ko waaye nag li indi problème bi moom dinañ ko bàyyi exactement mu wax ko parce que nag wax dëgg yàlla dafa mel ni ñaari doomam ñoo jote dañ koy bàyyi moom wax góor gi maa ngi lay baax a lay fay. Euh, tey da ñëwoon fii ci ndox Ndokh bii ngir am benn mbir boo xamante ni da koy déplorer. Mhm. Euh, lan lan mooy problème bi exactement. waa lii problème bi de dafa am sama benn jarbaat bu ñuy wax Samba Ndiaye. Mhm. dafa ñëw nii dafa bëgg sama doom. muy xale bu ndaw di jàng. Mhm. xale bi ñaata at la am. fukkat ak ñeent la am. 14 ans waaw 14 ma ne ko duma la ko may. parce que xale bu ndaw la mooy yóbbu ko pire. mu fay jàng mu fekk fa yàqal ko njàngam ma delloo si ko. indi waar ko Tiwaawan mu fekk si waar ko topp si waar ko ma delloo si waar ko ngay ngay mu fekk si waar ko ngay ngay euh, bi ma bi ñëwaatee ngay ngay ma woo sama rakk bu góor muy kaang ma ne ko sàmba wax ko ni ko na bàyyi sama doom bu mu ko joxati xaalis bu ko jox téléphone du ko may ndax seen kër may nañ fa ñetti jigéen yoo xam si biir kër lañ dëkk ñaari ñoo bokk ndey ak bàyyi sama doom yi rakk la kenn ki sama doom rakk la kooku moom yàllaa ko weddi kon du ko may na bàyyi sama doom famille bi lépp ma wax leen ko ñu ñëw wax ko mu lànk du génn kër gi mu ne si kër gi bàyyi mu ni ma du ma génn kër gi te mënoo ma tax a bàyyi sa doom man dama ko yóbbu si woon ñun ma bu ko yóbbu si woon. kër gi kan moo ko moom kër gi man maa moom kër gi. mais samay rakk laa fa nekkal sama rakk yu góor. Hmm. kenn laa fa nekkal si ko góor ñu dañoo dañu nekku si kër hmm. léegi bi ñu defee noonu yàlla dogal ma am dëj caawan. Hmm. ma ñëw si dëj bi caawan mu am problème ak yaayam ak rakkam bu góor parce que dafa yaayam ni ko dingul xaalis mu koy kangeen loo rakkam bu góor magam bu góor bi ni ko bàyyi sama yaayam mi ngay kangeen loo ci la woon tey xarit jógee mbéj kooku kooku daal di ko jóg téye ko sës ko. nday xari mooy kan. mooy sama doom bi Samba yóbbu. waaw léegi bi nga xam ne magam bu góor bi téye Samba ñëw tegee ko si kaw xale bu góor bi si kaw nday xari daal di koy daal di koy daal di bi ñu tàqale si si guddi mu daal génn dem sama kër benn mag. mooy seet village bi Mor Kumba Kay nekk si ku ñuy wax Cissé Ngom mu toog foofu léegi ñu bàyyi ko yaayam tëdd si néeg bi ndete booba Samba moom ñëw na pour préparer pour yóbbu xale bi léegi nag bi ñu toogee ba guddi wu jëm ku ñuy wax Ndey Ngom doom bi di ko yaay gisuñu Ndey Xadi mun ko ndey xadi fu mu war a dem mun gis ndey xadi booba ay 3 heures ci ci guddi 3 heures du matin waaw 3 heures du matin kooku ndey jëy daal dem si ligne gi xool ko mun yaay mun mun ko sàmb yére yi mu weeroon si ligne gi yére tooy gisatuñ ko te gisuñu ndey xadi ci lañu ko nag xool ndey xadi nag gisuñu ko ñu topp ko topp bi suba ga asamaan set ñu dem na bi ñu demee nag sama doomu benn mag ku ñuy wax euh, ku ñuy wax euh, kee mu ni sàmba oto ñëw na si ginnaaw ko bàyyi ay liggéey moo jël ndey xadi yóbbu ko bi coow na xale yi góor yi ni oto bi moom ñëw na ba buntu kër ndaan gi gis nañ ko mais gis ñu bi mu yóbbu Ndakaaru mais oto bi ñëw na léegi nag ci la ko du ko toppee nag daa di siiwal wax ji mhm. sama doom bu nekk Thiès daa def perte volonté mais soo fee brigade recherche mhm. léegi nag bi ko waa brigade recherche wooyee mu ni moom moo nday xat yi ñoo ànd ñun ko delloo si doomi jàmbur yow Samba Ndiaye doo si doomi jàmbur ah brigade recherche woo ko moom ba mu accepté ni moo xale bu jigéen bi ñoo ànd moo jigéen bi ñoo ànd léegi nag bi mu ñëwee léegi nag moo mu ñu delloo si ko Thiès ah delloo si woon na xale si woon na ko Thiès waaw bi mu ko delloo si Thiès ñu wooñu ñu dem ñu jël na xale fekk mu nekk si Ndeye Marème Ndeye Ndeye Marème jël ko ñu indi ko ñu dem yóbbu brigade de recherche bi ñu ko joxee xale bu euh, lieutenant bi wax ak moom laaj ko mu expliqué ko mën ko da bëgg Samba mais Samba Ndiaye dafa veele yoon parce que li mu def waru ko def waru ñëw jël la ngay xale bu ndaw yow nga am ñaar fukk at ak ñeent moo am fanweeri at la yóbbu kooku du yoon léegi bàyyi leen dama leen di boole euh, benn agent ngeen yóbbu ko Thiès euh, ngeen yóbbu ko hôpital bu ñu seet ko bi ñu demee nag la ko médecin bi seet nii hmm. ne nag léegi defal naa ko yi ma ko war defal yépp léegi da ngeen bàyyi bu subaa ngeen delloo si ko su ko defee ma xool ba xam pour ba xam am na wala yooyu hmm. léegi nag bi ñu ko yóbboo bi ñu ko jël ñu ko joxee ñu ci la ànd ak dem Mboro bi mu demee Mboro ñu pour ñu si ñu waroon a xëy yóbbu ko fekk yaayam da doon mhm. léegi nag foofu ci la Samba daal di woo sama rakk góor bi ko ana Ndey Xadi mu ne ko Ndey Xadi ànd naa ak yaayam dem na Mboro mu daal di wootee Mboro foofu si sama benn rakk jarbaat bu fa nekk saako ni ko bàyyil jàmbur ci la defee pexe nag moom ba am ku mu fa kooku jël moto jël si Ndey Xadi yóbbuwaat ko mu day waat ak nii la affaire bi demee sàmba nag daal di rucc ay fiches yi téléphone am. yi waaw léegi bu ñu ko wooyee kenn du ko jot. Samb ba mu jëlee Ndeye Khady ak léegi ñaata weer la. saa ba mu jëlee Ndeye Khady ak léegi mi ngi nekk weer ak fukki fan ak juróom ci tey. un mois 15 jours. gisoo la gisoo sa doom bu jigéen. ko um, ay mbokk mi yëg ni ko muy jóge fii nag di dem siin di fa fanaan si ak di fa. dem ban siin siinu xaalis fii si Tiwaawan. waaw. maa ak yaayam pen gay jur maa ak yaayam ñëpp. mais xale bu góor bii jël sa doom bu jigéen lan ngeen bokk yéen ñaar. maa ak yaayam bokk ndey ak baay sama jarbaat la. ñoo bokk ndey ak baay sama jarbaan la léegi muy dem foofu di ñëw ma daa demaat police porte plainte ko police ñun ma léegi da ngay seet ba xam da ngay xool di xool ba xam bu fa nekkee nga wax ñu ko pour ñu mën ko ne jàpp benn jour may laajte laajte man ma sàmbaa nga fa ma ànd ak police dem kër ñoom sàmba bi ñu demee heureusement fekk ñu fa ndete booba daa dem terrain ba di football yi léegi nag bi ñu demee ñun ma toog si oto bi ma toog si oto bi bi ma toogee si oto bi nag bañ dem seet ko ñu leen nekkul si kër gi fii dëkku fii yóbbu leen si beneen beneen bo kër bi ñu ñëwee ñu ma yow kër gi nga ñu wax nee nañu dëkku fii man leen fi la dëkk maa ngi waaye waa ji ne ma wàccal ñu dugg ma ne ko man du ma dugg seen kër parce que homme de droit dugg ma di ñun ñoo la wàccal dugg si kër wàccal gi léegi nag bi ñu wàccee bi ma wàccee ànd ak ñoom dugg si kër gi nag laa leen dem yóbbu si bâtiment ba li leen fii nii bi doon fanaan ñu waa ji yër ko xool ko yër bâtiment bi gisuñu ko mun ma léegi nañ dem léegi nag bi ñu ñibbi see waatee nag ci la magam góor bi ñu wax Mor Ndiaye nag mm, fekk doon na ma menacé que fekkoon na ma ni ma boo tëjee Samba dama lay tëj loolu am na mooy léegi mu menacé waat ma nag léegi may tam ma jël def ko si suñu group ëttu kër maam ma jël nag euh, euh, audio yooyu mu defoon dem tegal ko waa ci la ma waa police ni ma nag léegi yow da ngay dem bind beneen plainte pour Mor Ndiaye mi nga xam ni Samba lay dugg këram di fa fanaan nga dem fa ànd ak police mu naan la boo àndoon ak pëlakiloor bu ma ñëwee naa la def néew ci laa bind plainte boobu nag daal di koy déposé euh, police ñu woo ñu defar ko woo ma ma expliqué leen ñu woo Mor Ndiaye ñu ko léegi nag dossier bii nga xam ne moom la ñu wax dañ koy yóbbu tribunal pour tribunal woo la yow sa diggante Mor yow yaa góor ndax Mor yow sa yoon nekku ci ndax góor a Samba la joteel man Samba yóbbu sama doom Samba laay wër nii la action bi demee famille bi nag ñëpp yëg na ko. bi mu ko yóbbu léegi fukki fan ak juróom la ci tey. léegi daal yow da ngay sa doom. waaw man sama doom laa bëgg a gis. sama doom laa soxla yaayam nag ku muñ la dafa muñ a muñ ba mënut muñ mu ne ma nag sama doom da nga say mbokk farak farak say sama doom soo ko indiwul man damay génn si kër dem ñibbi woo ay càmmeñam ñu woo ni ma plainte boobu nga def noonu boo ko dindee di nga am problème parce que nag nekk ko ci yoon ndax de wax na dëgg ñu say mbokk te doomam fukki fan weer ak fukki fan ak juróom. ñu koy wër muy fanaan seen kër ñu gis ko te waxuñu si te yaa yaa ngeen bokk ndey ak baay. man daal yow sa doom say mbokk ko jël. ñoo ko jël kay ñoo ko jël ñoom ñoo ko jël parce que ñoo ko far. waaw góor gi est-ce que xale bi mënoo ko woon a may mënoo ko woon a may rek. sa njëkk comme comme comme comme ñoom ñaar ñëpp say doom lañ. nan laa koy maye ñoo xam ñaar ñoo bokk ndey ak baay kenn ki yàlla weddi na ko ñuy xale bu ndaw da ngay jël sa jiw def ko si menn pax loolu moo tax man ko du ma la ko may soo gisee foo bëgg feneen ma dem wutali la foofu jabar mais fii du ma la ko may te xale bi fukk waaw waaw bi ñëpp ñëpp ñëpp teew laaxan naa dëkk bi nañ xeex parce que dama bëgg sa doom waaw man nañ wax naa ko ko wax ko mu lànk ñoom lañ may jaay doole lañ may jaay samay jarbaat la waaye doole lañ may jaay ndax bu fekkoon samay doom yi nga xam ñoom mag tey ñu woon si biir kër ñu fekk leen fa loolu du am mais ka fi nekk jigéen la kera bi ma fekkee njëri di ma ménage sama doom bu jigéen bi mu ko nee ni ngay wax sama batu ko fen da ko ne comme da ngaa mën a farak sa papa damay farak sama rak mooy lu leer Mor njaay mii moo wax loolu. léegi daal fi mu nekk nii moom xale bu jigéen bi dina la tudd. Ndeye Khady Gaye Ndeye Khady Gaye mooy kooku ma leen di wan ci écran yi. waaw fukki at ak ñeent la am. mbokk yi ñu ngi ñaan képp koo xamante ni gis nga xale bii nanga nga woote ci numéro ban numéro lay woote. moo 77. 77. 543. 543. 74. 74. 57. 57. wala mu woote si 77. 77. 650 656. 656. 14. 14. 96. 96. waaw dégg ngeen ko mbokk yi xale bii ma leen wan ci écran bi képp ku ko gis lillaahi wa rasulihi bàyyi ma ngi nii weer ak fukki. fan ak juróom mu ngi koy wër ndax nee na moom jarbaatam moom moo jël doomam boo xamante ni euh, moom mi ak yaayu xale bu góor bi ñoo bokk nday ak baay da ko koo ñaan mu ni ko duma la ko may mu kinnatte doomam yóbbu ko ça fait 15 jours baayam a ngi nii toog kon nag bokk yi ñu ngi leen. weer ak fukki fan ak juróom un mois 15 jours. waaw weer ak fukki xale bu jigéen kenn gisu ko te 14 ans la ku gis xale bii di dem ci écran bi ñu ngi lay ñaan di laahi wa rasulihi nga woote ci numéro yooyu ñu la wax ñun nag amuñu droit génne photo xale bu góor bi ndax wax dëgg yàlla xamuñu nan la demee mais bàyyi ma ngi nii toog doomam bu jigéen daal lay wër képp ku ko gis nga dimbali ñu lillaahi wa rasulihi woote ci numéro boobu lan mooy si dernier mot. sama dernier mot mooy. Hmm. man daal damaa bëgg ñu gisal seetal ma sama doom ba gis ko. Hmm. bala maa mën a wax dara damaa gis sama doom. Hmm. parce que nag yaayam laa yërëm. yaayam moom yërëm naa ko Ah, xeetu jàmbur la dañ ma ko may rek xeetu jàmbur te daa am i mbokk ndax nii ñu def sama nii ñu ko def bu ñu ko defoon ñoom du ñoom kon ba dëgg di du leen neex kon dëgg la du leen def def nañ ko mm-hmm. comme nag xeetu jàmbur la te ma séq ko ay jaayam nañ génne sama doom ndax xam nañ fu mu nekk ndax moor mi di wax numéro Samba ngay moom ku ko laaj numéro Samba mu jox ko te Samba day faral ci këram di xëy di liggéey di dem yoonam waaw Samba maçon lay liggéey. jërëjëf mbokk yi di ko mu ngi noonu loolu moo doon li nga xamante ni moom la ñu leen indi tey di ñaan yàlla képp ko gis rek nga woote ci numéro yooyu incha allah rabbi nii lañ koy defee alxaaji Mbégi Diop fii moom tawatu ñëpp la képp koo xamante da nga am sa tawat boo ñëwee waxtaan ak ñun ñu jëmal la ko ngir yàlla war a su di ñaan yàlla nag ci barke yonent bi yàlla yàlla nit xale bi bu mu dellu si ci ay loxo ay bokkam ñu